waaw li ma bëggoon wax euh, olof mooy euh, tey maa ngi fii ci université Cheikh Anta Diop Dakar sama réew euh, man je suis de Bambey di indi fi tey sama livre bi nga xam ne génn na Espagne mu ngi tudd yaakaar ñu ko wax Esperanza yaakaar nag di di di moo bu foor fii ci Sénégal ci suñu làkk ndax yaakaar defe naa dafa résumé lu bëri. mais ci biir livre bi dañ ci wax euh, ñun africain yi nan lañu ñu tuba bi en même temps tamit ma ci wax tuba bi ñom nan lañu ñu ñun africain yi té tamit di ci jangat lol mbirum immigration bi xalé yi nga xamné ne dañuy dé ci géej yi donc ngir ñak xam Europe aussi tamit di xol tamit di ci wax tamit Afrique euh, ni mu jappé Europe yakarne ne chaque fois hmm, Europe rek mo mën tax ñu développer te au contraire du no ñun ñoom mën a développer suñu réew ñun les africains donc di ci wax tamit nan la ñu mën a gën a rataxale diggante yi entre Afrique ak Europe ci interculturalité ci solidarité ak ci euh, intégration parce que je crois que interculturalité solidarité euh, ak euh, coopération ak intégration mooy li nga xam ne moom mooy gën a jëmale réew yi kanam parce que moom mooy indi dialogue dialogue boobu mooy indi déggoo moy gëna tax ñu itam ñu xol ban yoon lañ mëna aw pour Afrique mëna développer gë mëna a ci ndol gi nga xamné chaque fois mo moy li gëna a ci Afrique. est-ce que da nga wax ay solution ci mbirum euh, immigration. si si si livre bi wax naa ci ci mbirum immigration mais man lima wax ci mbirum immigration dama ci wax lan mo waral loolu parce que nit ñi euh pour ñom tubab moy xaliss pour ñom tubab ñom ñoñu raw mais ñun bu ñu jàngee ñun ak tubaab yi ñoo yem donc il faut ñu gëm loolu que li ñu utale rek mooy ñoom dañoo nangoo liggéey ñun nanguwuñoo liggéey mais bu ñu liggéeyee nangoo jàng mën nañoo mel ni ñu neex incha allah rabbi. à part l'immigration yan thème yan thème la ñuy gis développé woo si euh, développé naa si aussi thème yi euh, racisme développé naa si aussi thème culturel bi. développé naa si aussi thème euh, étudiants yi développé naa si aussi euh, thème euh, ñun tubaab yi ni nga xam ne ñoom la ñu jàppee Afrique tamit développé naa ci ne que ne war na ñun ñoo war a changé doxin du tubaab bi moo war a changé doxin mais ñun ñoo war a changé doxin te loolu lépp tamit jàng def naa ci jàngat boo xam ne étudiant bu jël livre bi liir ko dina toogaat xalaataat ne ah man yaakaaroon naa ne ndekete lii mooy Afrique ou bien ah ndeke man yaakaaroon naa lii mooy Europe donc parce que lii mën na jariñ étudiant bu ne je crois que sénégalais bu ne livre bi c'est très intéressant pour moom pour que je crois que mën na yokk lu bëri ci suñu développement parce que man chaque fois damay faral di wax ne culture ak musique du fo culture ak musique ak éducation loolu ñoom ñoo jëmale réew kanam parce que culture dalay xamal yow yaay kan dalay xamal li nga fi nga jóge xamal la fi nga jëm xamal la li nga war a def ba pare faciliter communication bi yow ak leneen li nga war a def parce que culture du fo du caaxaan éducation tamit xamal la léegi nag bu fekkee ni xam nga jàng nga xam nga yow yaay kan xam nga fooy jóge ba pare formé nañ la je crois que di nga am yoon bu leer pour mën a jëm kanam donc gannaaw bi nga bindee livre bi pare est-ce que am na lenn loo si si si si si parce que bi ma bindee livre bi euh, vraiment parce que man si sama bopp dama ci am betteel parce que dama génn livre bi rek avant muy génn jaay naa mille livres fi mu ne nii maa ci deuxième édition bi 3000 livres euh, te fi mu ne nii ñu ngi koy traduire en francais di ko traduire en wolof.

parce que man pour man coopération day gëna a delloo Afrique mais xamuñu ko donc té peut-être deuxième livre bi amna yu amna jangat yu bari yo xamné dina dina ñëw ci inshallah rabbi. muchísimas gracias. Eh, estoy super contento de estar aquí en la universidad, en Senegal, mi país. Y yo doy muchísimas gracias a Museum Bay de, por facilitar todas esas posibilidades. Y estoy aquí con mi libro que se llama Yakar, y eh, esperanza y hablar de la inmigración, de cómo nosotros los negros vemos a los blancos y de cómo los blancos vemos a los negros y qué posibilidades podemos hacer para conocer más a Europa y conocer más a África y desarrollar, trabajar más la interculturalidad, la solidaridad y la integración entre África y Europa. On regroupe euh, l'espagnol, le portugais et l'italien. nous sommes heureux, nous sommes heureux vraiment d'accueillir Khali à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Khali, on s'est vu le vendredi passé à Las Palmas, j'étais de voyage, et on a parlé, il m'a euh, dit qu'il a publié un livre qu'il voulait présenter au Sénégal. Moi, je lui ai dit qu'il n'y a pas de livre plus favorable, pertinent que l'université Cheikh Anta la faculté de lettres et surtout le département d'espagnol. C'est un département formé de trois langues, comme j'ai dit, et l'espagnol accueille plus de 3000 étudiants. Donc je lui ai dit, donc tu as un public, c'est le département, donc il faut venir présenter. Et là, vous avez vu pendant la présentation, euh, notre collègue qui travaille sur la littérature afro-hispanique, donc a fait une analyse pertinente du roman. Il y a eu des échanges avec, euh, avec les étudiants et c'est ça que nous attendons. Et je crois que j'en profite du gouvernement Khalis, c'est un modèle. Ce n'est pas seulement l'écrivain, mais c'est l'artiste c'est l'artiste, c'est l'écrivain, c'est celui qui travaille non seulement avec l'art, mais aussi des projets de développement et de culture. Donc quand on a échangé, donc vraiment nous lui avons dit, eh, dans tout notre eh, plaisir eh, de faire ces présentations, mais aussi de continuer eh, dans tous les projets qu'il a, euh, qu'il a en tête. Par rapport euh, euh, à la révolution culturelle mhm. africaine, est-ce que vous pouvez me donner des données le thème, c'est important parce que nous, ici, donc, dans le département, comme j'ai dit, donc, il y a des études afro-hispaniques. Donc, euh, ce que nous avons vu, euh, euh, le migrant, entre guillemets, donc toute l'histoire du migrant a, été souvent racontée par autres. par Maintenant, ce que nous voyons, c'est quoi C'est le migrant lui-même qui n'a pas fait des études. Il y a des gens qui n'ont pas fait des études. Qui est là C'est celui qui est le sujet et l'objet maintenant de son récit. Je ça, c'est une révolution au niveau de, euh, cette littérature. Donc, il y a 4 ans, un Sénégalais appelé Mamadou Dia avait euh, publié un livre. Et quand j'ai vu Khalid, je me dis, voilà une occasion. Maintenant, les Sénégalais vont là-bas. Ce ne sont pas seulement des émigrés misérables, non c'est des intellectuels, c'est des étudiants qui sont là-bas et là qui sont en train de rehausser la culture sénégalaise, la culture africaine, à partir de la musique, comme le fait Khali, mais aussi à partir de la, la littérature. Moi, je crois que c'est bien. Là, euh, c'est là où vraiment je vois cette révolution culturelle de l'immigré. L'immigré qui est là, mais aussi qui se dit intellectuel. Parce que lui, il le sait, quand vous allez là-bas, euh, en principe, on vous regarde comme un pauvre, celui qui vient de l'Afrique, celui qui n'a rien, celui qui n'a pas appris. Lui, il l'a dit. on vous demande même, est-ce qu'en Afrique, vous vivez sous les arbres ou sous les arbres, vous vivez avec les lions Mais lui, c'est un exemple. Il a montré que c'est un, euh, vraiment un grand, un grand, artiste. Et avec ce livre, vraiment, ça va servir de quoi ça va servir de, voix, de voix pour beaucoup, pour nos jeunes, parce qu'il est en même temps éducateur, il l'a dit. Ce n'est pas l'artiste seulement qui cherche le plaisir dans sa musique ou dans son art, mais cet art sert à quoi À éduquer. Et nous espérons que votre livre, une fois placé, parce qu'on lui a promis même de mettre le livre cette année au programme pour nos, étudiants de licence et de master. Parce que c'est très important, ça nous permet de vulgariser à chaud vraiment ce qu'il est en train de, en train de produire. De même père et de même mère, alors euh, ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm leen wax ne xale yi ñoom euh, xalaat bi ñu am euh, xalaat yi xale yëpp war nañ ko am ci Sénégal te mooy li mu wax rek léegi nañ war a gëm ne fekk ñu ngi xalaat tubaab yi di ñu dimbali rek dunu ñu dem ndax mag ñu baax ñi fi nekkoon loolu moo leen dimbali woon ndax dañoo jàpp ne tubaab yi rek ñoo fii doon dem te xasuñu tubaab yi nag quand même mais dañoo ma ñoom dañoo gëm seen bopp dañoo am xam-xam di ko pratiquer mais ñun tamit foofu lañ war a toll ndax boo gisee dañ jël exemple Cheikh Mouhamadou Moutada euh, bi mu demee Europe ñu ne waa kii lan la lan la lan la lan lan la ils ont mis des caméras si biir hôtel bi parce que ñu ne kii ñii ko gëm nii lan moo tax ñu gëm ko ñu def ay caméra cachée ci biir hôtel bi waaye leur problème mooy dañoo toog noonu ba bët set gisuñu sëñ bi tëdd ci lal bi ak lalu lalu étoile euh, euh, hôtel sept étoiles ni mu baaxee gisuñu sëñ bi tëdd ci lal bi ci suuf la toog jël ngegenaay bi sonn bu jullee ba pare jël alxuraanam jàng boo fajar mu julli ndongo yi ñëw ubbi tubaab yi ne bon léegi kii lan moo tax mu def li mu def

mën a fetal donc wala buñ la libéré nga doon bandi di di di agressé léegi baal mu yóbbu xale yi daara ñu créé arme mu créé daara waaw boo jógee ci daara ji di nga xam sa ndey xam sa baay di xam fi nga jëm ëllëg dégg nga ñu créé journal da ngay xool di liir rek la ca France la ca Europe mu créé xasida bu gaa ji di jàng fi ay lire ay journal la yow ngay jàng ay xasida di ci am yàlla di ci di ci xam sa bopp ñu créé ay grand place toog ci mbedd mi di dam yee di pousse moom mu créé diwaanu muri dina wal muri daat bu ngoon jotee ñu daje naan sunu café Touba waxtaan ci yàlla mais imagine toi loolu mooy gëm sa bopp sëriñ bi loolu la créé ñun tam loolu lañ war a gëm loolu lañ gëm bu ñoom ñu créer lii ñun tam dañuy créer lee li mu wax tam nag dëgg la nañu dox jëm ci ñoom yàlla na leen yàlla jàppale directeur vraiment euh, kontaan nañ bu baax lii nga defal xaalis ñun nga ko defal ñun ñëpp yaa mes sœurs et tout ñoom ñëpp ñu ngi fi alors ñu ngi remercier suñu ay grands frères yi nga xamante ne bi tam ñoo ci jàpp tam fi comme le PDG de Africatel AVS et le PDG de Lampfal Communication et notre grand frère Abdou Thioun euh, mooy suñu Khalifa, ak Mandiaye mu ngi ñi ci jàpp ñoom Fallou ñoom